daleen ak jàmm seen seen bi di NGTV Sénégal kii di Dame Mbodj yëkkati na ay kàddu daal di tontu kii di Madiambal Diagne ci ñett sos yu muy sosal kii di président Ousmane Sonko sos bi si jiitu mooy que ne kii di Madiambal Diagne ci sortie yu mujj yum def dane kii di président usman Sonko du bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm ndax kookee dafa dangereux pour république wu Sénégal bi si li ni mel lu ko ci Dame tontu mooy que ne kii di président Ousmane Sonko ci dëggantaan moom mooy candidat bu gën ci askan wi ndax kookee ab anti système la waaye kii di président Ousmane Sonko si ñum dangereux nag moom mooy si ma jambal Diagne ak képp ku mel ni moom waa toog muy dox nalaw muy dox bañ a def dara muy dox ñooñee nga xam ne dañuy dundee système bi te duñ dundal système bi ñooñee ñoo ragal bu kii di président Ousmane Sonko jëlee bopp réew mi daal di changer seen train de vie daal di fi jëlee càcc gi ñuy amal ñooñee ñoom ñoo tiit ba di tuddee kii di président Ousmane Sonko naan dafa dangereux pour république bi. ginnaaw loolee tamit beneen sos bu kii di ma Madiambal Diagne di fësal jëmale ko ci kii di président Ousmane Sonko mooy que ne ne kii di président Ousmane Sonko ak la moom moo tax bu ñu reyee ay militaire biir Casamance du ci àddu mukk si li ni lu ci dàmbooj daal di tontu kii di Madiambal Diagne mooy que ne kii di président Ousmane Sonko du ministre de l' intérieur si réew mi di Sénégal. tamit du ministre des force armées ci réew mi di Sénégal ne donc kookee bu fekkee ay militaire wala ay rebelle dañoo ñàkk seen bakkan ca Casamance lu sénégalais di yëg comme information loolee rek la fay yëg comme information lu président Ousmane Sonko di am information ci mbir yooyee day limité wu kon bu defee ab communiqué jëmale ci mbir moomee te amulee information yu doy li ni mel mun naa sabab mu daal di def ab erreur de communication ne loolee moom moo sabab kàddu yi ni mel la kii di Dame Mbodj tontu na kii di Madiambal Diagne ginnaaw ba kookee yëkkati ay sos daal di koy jëmale ci kii di président Ousmane Sonko.